أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وصلى الله على نبيه الكريم سيد ولد آدم محمد الذي أسري إلى مكان لم يدع فيه إنسان قدمه لم اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد عباد الله إذا كان المقولة المشهورة صحيحة لكل حادثة حديث فحديث اليوم لابد أن يكون محل بالشعب قليل نتيجة قلق باقلة الجولا وعلى منها أكثر من قلب شخص معزمهم من الشباب المتعلمين ولم يعرف تاريخ النقل البحري هذه الكارثة الكبرى منذ قلق باقلة البريطانية التيتانيك في محيط الأطلنطي يوم رابع من إبريل سنة 1912 وقد مات فيها 1500 وثلاثة عشر شخصا وهي أكبر كارثة بحرية في مجال النقل البحري الآن ونحن بهذه المناسبة الأليمة وفي هذه الظروف الشعبة التي يمر بها سنغال حكومة وشعبا فردا وجماعة نقدم تعاسينا إلى كافة الأسر المنكوبة إظهارا بتدامن تامة معهم نحن إذ نشاكرهم ما يعانون به من ألام نفسية شديدة نقول لهم إنا وإياهم لا نملك في حياته إلا كما قال تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فلا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين وأن يلهم سبيلهم صبر وسلوان ببركة هذه الليلة ليلة الإسلام والمعراج اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال تبارك وتعالى كل نفس سائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في هذه السلوك الحرجة من تاريخ شعبنا مطلوب من كل واحد منا أن يراجع نفسه ويكف عن إلهاق ضرر بالآخرين نية وقولا وعملا أما الحديث عن ليلة الإسراء والمعراج إن شاء الله سيكون على أيدي العلماء قال إن شاء الله وتيتعالى كما معهم عشيرة اللهم إن الله قلبك قال لي نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم إن جاءوكم محسنين فاشهد بإحسانهم وإن جاءوكم مسيئين فتجاوز سيئاتهم ربنا لا تفتنا بعدهم اللهم آمنا في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في ما وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد ولا أهلي وسع ذنوبي أقم حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم し شاء ربك والملك شرحا غير ملك جعلنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله kon mbokk yi asalaamaaleykum kii di wax seen yéen ñu leen waxal lépp lu wax njëriñ la te lu wax barke la te lu wax noonu la de du wax du noonu mukk borom bu ne bëre jóg ne la déglu ma waxal la déglu ko mu waxal la ndax nga jëlee sa njëriñ yal nañu yàlla defal njëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp te di leen siyaare ñi nga xam ne noonu la bëgg jëfe incha allah ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk délégation bi fi ñëw am na ñu ñu bokkal biir diine bi am na ñoo xam ne xañ na demeewuñu noonu moo tax lépp loo xam ne waxtaan la incha allahu daañu dem ci kër ga waxtaan ko ci ay kàddu ba ko defee góor gi ñaanal mbooloo bi waaye kon jataay bi yàlla atee na am na ñu gisanti réew mi am fu mu toll soxla wut dem di gëstu fi mu ne ay aaya alquran wala ay teg ci ay biibal wala leneen parce que yow li ngay dundee boo ko yëgul xamula ko boo demee ci yeneen téere doo ko dégg kon ñu ngi jàlli ñëpp suñu paree daañu def dog bu gàtt ñaanal suñu mbokk yooyu des ci bato bi yal yàlla jéggal leen te xare leen ajjana ñuy nag ñaan nit ñi te di leen sant nañu dal nañu dal te it nañuy wax lu ñu xam ko gis nga fi mu nekk nii ci saa si li gën a métti moo di koo dajale rek expert yu maritime la di wax loo xam ak loo xamut réew la koy yóbbu moo di il faut ñu ñu delluwaat gannaaw defaraat suñu bopp ñun nañu mel noonu la suñu réew war a mel dal dafa baax def ci am nit ñoo xam ne nag bu oto yëngatoo sax adduna si tukki na gis nga élection yi passé yaakaar naa ne mu ngi nekkoon fukki fan ak juróom-ñeent fukki fan ak juróom-ñett Euh, su préfet bu Toubacouta ñëw fi ñëw fi ne day siyaare góor gi ñu ne góor gi dafa dugg ma ne ma seetal la ko mu ne ma déedéet soxla woo ko ñuy waxtaan ba mu yàgg lu jëm ci réew mi mu daal di jàllale ba ko wax ay kàddu ne man daal nit ñi dañuy wax rek waaye du dara jàmm rek la. parce que man ni ma gisee moo di loo xam ne juróom-ñetti nit ñoo ko seqoon li ko xëccoo dara jë dara xewut ca ba mu des diggante ñaari nit dara du fa xew. dugg oto dem ma ne ñun dee tàkk nañu supari fi lii lay xalaat nit ñaa ngee xalaat lu nekk kon de ki jëlu benn benn nattukaay jëlu naan réew mi dara du fa xew réew mi nit ñi ne mu ngi tàkk ci suba sa affaire yu mel ni ki te gis nga booba bu dal amut mu génn dem kaaram di laajte mbir mi fu mu tollu am benn waaye nettali ko parce que démb ci boori foore bi gis na fi ñaari nit ñoo xam ne dañu gàddu semiñ xam nga lu ñu koy wax gis nañ ay démb gis nañ nit ñoo xam ne ay gànnaay la ñu am dugg ci forêt bi il faut que dal beneen bi moo di wàllu gouvernement bi ak kilifa diine yi kilifa diine yi nañoo wax nit ñi li nga xam ne loolu la leen dina wax ñu wax nit ñi itam seen man-man fi mu toll gouvernement bi wax nit ñi fi mu seen man-man fi mu toll li ci des nit ñi ci seen wàllu bopp kenn ku ci nekk xam ne la lay jëriñ sa loxo ngi ci biir lépp ñu di ko tegante mënul nekk du dëgg dafa am ma jox leen benn misaal ndax du ñu tudd alxuraan ni ñuy dundee la wax bi nga xamee ne école tëj na ci benn quartier ci Dakar kilifa yi dajee dem seetu benn commandant wu brigade gendarmerie nekk suñuy tànk dee moo di gis nañ at yi yépp bu école tëjee xale yi dañuy ñëw bu ñu ñëwee di def seeni rab yooyu seeni football yi balañ fa jógee rek hôpital wala commissariat ñu bëggoon nag ren nga dimbali ñu ci aaye loolu mu ne leen duma ko def jotuma ndigal li te loolu sax lu waa waxu waaye lenn de mën naa leen ko wax moo di man mi nga xam ne maa ngi ñoo fi nekk ak samay njaboot moo de man naa leen garantir ne sama njaboot yi duñ ko organiser seen leen nag yéen payi ti ci biir sakki seen doom yi koy organiser li nga mënul ci sa kër bëgg ñëw sax dama yooyu réglé la ko payi xoolante ci seen i biir waa dina moo lank képp ku nekk fii ci biir réew mi nga nekk magistrat nga nekk gendarme walla nga nekk police nga dem commissariat mos nga faa gis jinne nit nga fay gis il faut que ñu dellu yaraat suñu bopp xam ne yar boobu rek moo ñu mën a yóbbu fi may mottalee sama wax moo di nag ba xew-xew jotee ñu ne nañu bàyyi li naqareewoon yàlla dellu ci yàlla dafa mel nag yàlla bu doon nit ñi ne xel ma dañ ko xaw a xeeb du noonu soo delloo ci histoire du Sénégal ndax réew bu màggee te yàgg lépp lu ñuy dundee ima léeb na ko wala am na lu mu ci wax ñu delluwaat ci histoire du Sénégal ba xam lan la ñuy wax ci événement yu demee nii xew-xew yu demee nii ak kaamel yu bëri yéeg nangam bu bëri beeg nañu tëj leeg nañu bàyyi fecc meeg ba affaire bi passé ñu dellu ci nañu meloon caaxaan la waxuma alquran waxuma leneen nañu dellu ci suñ biiru dundin Sénégal ñu fekk ba xam loole ñi fi nekkoon ñu ko gisee ñu ne dafa amoon benn pël pël ba am nag yu bëree bari bari am ñetti doomi góor ñu nekk ci gétt ga di ko sàmm ci wetam moo am fa benn sëriñ daara boo xam ne li mu amee ci ay taalibe kenn xamul nu mu toll lii liggéeyam moo di dem tool dem jàkka ja jàngal ay taalibeem ñu toog bi jëmi jamono feebar ñëw ca dëkk ba laal nag yi ba am ci lu ci dee daldi dugg ca biir njaboot ga xele bu mag ba dee ñu dem bem yàgg xeleel bi ci topp feebar papa ji jël ko ci loxo dem ci dara ba ne ko sëriñ bi mu ne ko am mu ne ko sama doom bi dama bëgg mu bàyyi sàmm ñëw dugg ci biir alquran bi di al alquran doom ji nekk ci wetam ji mu àndal doom ja jooy ne ko papa man sàmm laa bëgg waaye bëgg ma jàng alquran mu yootal ko ne ko noppi damay nax yàlla rek dama ragal ni al boobu la ñu waxoon démb moo ñu bëgg a dal bëgguma sax nga jàng alquran waaye noppi rek su ma ci daara ji ba nga ba nga ndax man gis ni ñun ñi nekk ci alquran bi sëriñ e, bi ak taalibeem bi deewuñu ma ne xaaral ñu dugg si alxuraan bi boo wéree rek ñu bàyyiwaat ko yàlla kenn du ko nax ñu delloo ci suñu bopp. kon waxtaan bi bañ a yàgg incha allah ñu dem ca kër ga góor gi danañ leen jottali ay kàddu ngeen yëbbul ko kilifa ya incha allah bi ren yàlla nañ ko yàlla may ba ñu fekkee ko déwén te lépp luñ ci jàmm yàlla nangul ñu bi jaay séddu jëdu alim sor allahumma salli إياك نعبد وإياك نستعين alim sëñ bi na ñun ñëpp de ñu bokk de Fatiha de mu ne gannaaw ba mu nuyoo mbooloo mi ne jiital ci nag kilifa gi muy góor ak ñi mu àndal ne ñëpp mu ngi leen di nuyu de te ñëpp a ngi leen di nuyu di leen ñaanal de. ne fekkee nañ ren yàlla nañ di ko fekkee rek di ko fekkee. mu ne ñu ñëpp nañ bokk fas ci xol yi ne. ndax nii ko alaaji waxee nag. ne réew mi ci boppam mu ne. ne li réew mi laaj. moo di kenn ku ne. ne dellul ci la la yàlla wax mu ne. te toujours moom mu di ñu ko wax de. ne xol xel jikko. ne bu ñu yàqoo ne nit ki dana yàqu mu ne ndax kooka yoonam du ne ci dara nam tudd sax yoonam newut sa noona la yoonam la yoonam ca la mu ne ak la mu soxla mooy lam bëgg rekk moom te li mu bëgg du bokk ak la yàlla bëgg mu ne bu bokkul ak la yàlla bëgg moom jëfam joojale du jëfu defar de. du defaru de. te du defar de. mu ne loolu xaw naa bari. ndax lu ne. ne yàlla tëral na ko. ne defee leen ko nii. defin woowale. ne saa yi buñ ko bàyyee. ne réew. réew mi fii nekk rek. waaye réew mi du jóg de. ndax du dëgg. ndax du dëgg. te du yëkkati. doole. mu ne doole duñ ko dóoree. waaw ah, doole. doole. dañ koy defaree. dañ koy defaree mu ne. xel mu ñëw. ne xel mu ñëw. dafa war a rafet. dafa war a rafet. ñu di ko defaree. ñu di ko defaree de. kon dañ def Fatiha. kon bokk ñun ñëpp def Fatiha. ànd ak góornoor. ànd ko góornoor. ak ñi mu àndal. ak moom ak ñi mu àndal. ndax toujours. mu ne ndax toujours. góornoor mu ngi bokk ci kilifa yi. góornoor mu ngi bokk rek ci kilifa yi ne. ci kilifa ci kilifa diine yi. ci kilifa diine yi. ci kilifa aada yi. ci kilifay aada yi. bokk ci itam. ñoo xam ne. ci ñoo xam ne. bu ñu ñaanee. ne bu ñu ñaanee. bu fekkee xol ba bu fekkee xol ba. su fekkee ni xol ba. sell nga fa rek. xol ba sell nga ca. yàlla du ko du ko delloo. ne googa ñaan yàlla du ko delloo de. ndax sàmmkat la. mu ne ndax sàmmkat la. te jullit la. te jullit la. xam na. te xam na. ne day sàmm. ne day sàmm. xam na. xam na. ne la muy sàmm. ne la muy sàmm. dañ ko ko laaj. dañ ko ko laaj. kon ñun ñëpp. kon ñun ñëpp. nañu bokk def fatiha ñu yàgg di ko fi daje ñu yàgg di fi daje ñu def ñu yàgg di ko fi daje ñu yàgg di ko fi daje ci barke alquran ci barke alquran ñu ñëpp ñu def fatiha ñu ñëpp ñu bokk def fatiha moo jaboota ñëpp ndax moo jaboota ñëpp mu ne bu demee ca kër buñ demee ba ca kër ga ne moom mu def fa waxtaanam ak li mu war a waxtaan ak njaboot gi mu def ñaanam ñun ñëpp ñu bokk ko def ñaan ndax yàlla yërëm ñu yàlla gërëm ñu mu ne li xew nii ci Sénégal nag. ñëpp ku am xel. ne ñëpp xam képp ko am xel. xam nga ne. ne xam nga ne. yàlla du jaaxal. ne xam nga ne yàlla du jaaxal. yàlla du ndànk de. yàlla du ndànk. te du te mu ne te yàlla du nit. yàlla borom la. yàlla moo di borom. am na def ñaan. ban nañu bokk def ñaan. yàlla defal ñu jàmm. yàlla defal ñu sutura. ñu dem ca kër gi. ñu bokk nag dem ca kë ga. kilifa gi. gi. moo elif njaboot bi teew na ci teew na ci barkeb alquran ci daara bi ci daara bi ndax toujours dama koy wax mu ne ndax toujours mu ngi koy wax de dama koy baantu rek di ko wax di ko baantu rek ñu sëriñ de ne duhut sëriñ taalube la de taalube la de bokk ci taalibe yi bokk nag ci taalibe yi bokk ci njaboot yi bokk ci njaboot ji di mooy tëndeku di mooy tëndeku nag ndax ñu ngi fi de ndax ñu ngi fi jóge fi waaye jóge fi rek bu àllaaxira jotee ci bu àllaaxira jotee di sàkku ci yàlla muy sàkku ci yàlla mu ma yoreel kenn dara كم يرى الكدرة تحق تحق وما كم يرى الدرة كو كم يرى الدرة كما يرى اليتم كو يرى جغلنا لا جغلنا لا مو ام جيرين لا مو ام جيرين مو ام سولو تي مان مو ام سولو تي كون ان شاء الله كون ان شاء الله كليفا كليفا كي waxtaanam waxtaanam ak njaboot ak njaboot ñu egg ca kër ga ñu egg ca kër ñu def fatiha ñu bokk def fatiha suñu àdduna rafet suñu àdduna rafet suñu alaxira rafet bismillah bismillah fatiha bismillah rahmani rahim ala sayyidina muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين قدير الله استرق عبودي لمن هاج من فضل وفكر وسداد معشر من يدلي له مثل وعدوني تعالوا فعندي للنبي محمد مديه كصحري كما يلت التي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يا ربي قد افلح المؤمنون على سيد ساداتي نبينا ورسوله waaw ati muy wax nag ngeen bàyyi ci xel. ndax kilifa yi digle nañu ba tàyyi. kilifa yi day digle nañu ba tàyyi kon gi daje. kon bu njaboot gi daje. njaboot googu ne njaboot googu de. kilifa. kilifa ñëw ca béréb ba. kilifa ñëw ca béréb ba. am na wareef. na wareef. am na wareef pour wax ko njaboot kon ngeen bàyyi ci xel kon li muy wax mu ne nañ ci bàyyi xel ndax àllaaxira ngay ñëw mu ne kat àllaaxira ngay ñëw te kiy wax di ki di wax di wax ci yàlla di wax ci yàlla di wax ci rafet na di wax ci rafet na yow ma muy waxeel yow ma muy waxal. yow ma muy waxal. bu àllaaxira jotee. ne bu àllaaxira jotee. da ngeen fa daje de. da ngeen di daje ne da ngeen fa daje. daje boobu la. di daje boobu la. kenn ku ne. kenn ku ne. dafa war ci bàyyi xel. daf tay war a bàyyi xel mu ne ca daje boobu la. kon mu ngi waxtaan si ak yéen. kon moom mii di kilifa gi mu ngi waxtaan si ak ñun mu ne. kon incha allah. kon incha allah. li nga xam ne moo yore réew. li nga xam ne mooy yore réew. ñi ko ñi ko sekk. ña ko sekk. di ko doxal. di ko doxal. waaw moo di njaboot bi. moo di njaboot ji. mu nangul kilifa bi. na njaboot ji kilifa bi. kilifa itam. kilifa bi itam. yërëm. na yërëm. njaboot bi. njaboot ñaar yi bu amee rek. na yaar yi bu ñu amee rek. yàlla dina def jàmm. yàllaay def jàmmam. kon dina waxtaan ak yéen. kon dana waxtaan ak ñun. bisimilah. bisimilah allahumma salli ala sayyidina. allahumma salli euh, balaa ñuy dugg ci waxtaan bi ñu xiral leen délégation bi nga xam ne moom la gouverneur El jalo Diallo jiite El Hadji Diallo gouverneur de la région de Fatick mu ngi ànd Al Assane Sall